dal leen ak jàmm mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa bu baax jeex di am mbégte saa su ne defal vidéo comme neen gisee Iliman Ndiaye moo si xalaatam ñeneen na day ñeneen na ku nekk wax wax na si xalaatam euh, ma andi leen Amdy Faye wax Amdy Faye moom euh, dafa bokk si ñi pour moom dafa war a Angleterre parce que xamal nee man daal bu ma soon Iliman Ndiaye day toog Angleterre xam donc moo ngi football foofu moo ngi am tour pourquoi naa formation là quoi maanaam France mu ne amul dara bañul Marseille Marseille sax la gën bëgg Paris mais mom pour mom Ligue 1 mom bu féké fekkee Iliman Ndiaye dafay dem pour progresser pour mom Paris la wara dem donc nee Paris bëri né talent mu progresser mais dem Marseille nee na gisul ne euh, Iliman Ndiaye propre ni muy ak Marseille dal style stylisé bu Iliman Ndiaye collé na ak Marseille euh, beneen euh, international ancien sénégalais 2002 Alassane Ndour moom xalaat bu différent la parce que nee Iliman Ndiaye dafa war a privilégier sportif bi te privilégier tamit temps de jeu ak projet bu xamante ne voilà euh, dañuy am ci moom yaakaar nee na nag euh, bu demee championnat France il faut mu teel a adapté mais nag dina di si ñëw si championnat bu xamante ne xamu ko te nee na Marseille ak seen supporter amuñu xa amu patience amuñu dara koi bu ñu nee kii talent pour ñoom da war a ñëw rek amuñu patience boobu moo tax mu ne Marseille challenge la pour euh, pour kii Iliman Ndiaye mais moom jàpp na ne ak qualité yi Iliman Ndiaye am mën na mën na adapté wu foofu. Euh, beneen journaliste bu xamante de la place Adama Ndione man ak moom ñooy moom xam nga donc euh, moom ne moom supporter Marseille la sax d'ailleurs mu ne c'est une question de contexte et de situation mu ne euh, c'est vrai que Angleterre c'était bon mais bu ñuy Marseille mu a explosé mu ne histoire bi doon dàqal ñëpp moo doon mu toog foofu c'est Premier ligue waaye moom comme que dafa bëgg Marseille depuis mu nekkee booy la fekk mu dem fa aussi sa se comprendre à l'âge de 10 ans 11 ans nga bëgg Marseille mu ne loolu histoire bu rafet la dem ba nekk support nekk fans ne mu ñëw sul maillot bi loolu histoire bu rafet la nee na jàpp nañ ne tamit waa Marseille pare nañ pour accueillir que si si yoon am nañ ci moom ya yaakaar ba pare si côté médiatique dañ koy gën a xam mu ne na ne mariage bu bu la que gars yu bëri la lañ xamul Iliman Ndiaye peut-être bii mooy dernier chance mu a ñëw Marseille bëgg na Marseille mënu mënu football parce que mën ñu ko fay Iliman Ndiaye bii nii nii bu mën na football ba nii na dem Marseille parce que mën ko na fa nekk deux trois ans bu tojee mu dem feneen mais peut-être euh, ko tëbee rek yeneen yi de mais bëgg nañ jouer Marseille parce que loolu bëgg-bëgg la rek la cofeel la rek mais am na niveau yooyu nekk doo football Marseille Sadio Mané loolu loolu ko dal Sadio il faut mu am ay 34 wala yu demee nekk si fin mu ñëw Marseille mais moom bu sañoon Marseille lay football mais Marseille moom ñu ñu ko fay Iliman Ndiaye nag nii nii man na def mooy sama xalaat et keroog def naa vidéo bu bu complet wax naa ci jorul may ñëwaat di ci di si wax quoi donc nii laa ko gisee wax naa leen ko yéen ci commentaire aussi mën ngeen ngeen jox seen commentaire seen xalaat ak seen gis-gis man pour man Marseille choix bu baax la du point de vue médiatique visibilité tour ora euh, pression niveau bi ngay nekk euh, y a tout ça que daaw ñëpp saa nañu mën sa City c'est fini c'est fini ça équipe bu ndaw la de proprement daaw muy Mandiaye mu dee ak Sheffield ngay xam ne saa yoo pop pop ak Sheffield nii Premier League bi dina métti doon na def ay prestation nag mën na def yenn prestation mais ba jour dafa essayer neew réer carrément réer carrément dafa réer xamu sax la la war a def donc à euh, Marseille y de très bonne qualité am une vision claire entraîneur boo xamante ne 4-4-2 lay gis man pour man loolu loolu boobu bu Iliman am naa ci moom yaakaar quoi que bu ñëwee foofu dina liggéey liggéey bi war def performance yi sénégalais yi di xaar ak supporters yi di xaar de manière générale mbokk yi jaajëfal naa wax leen ba beneen su seen football TV.